jërëjëf mbokk internet yu impro tey nag ñi ngi fii seet si sunu xarit nit ku baax koo xam ne li tax ñuy sawar di waxtaan ak moom mooy yar gi ak teggeen gi ak partage bi lu combat bi rey rëy rëy doo dégg mu wax bu débordé den waxtaan ci làmb nag mais saa boo dégg ay interview am rek da nga ciy jàngaat ci communication bi macha allah euh, mu yaru lool te loolu dafam solo ci nit ki parce que booy wax yow xamal di wax waaye bul xam ñi lay seetaan loolu bokk na tax ma gën koo naw muy Tapha ñu ngi waxtaan ak moom tey nag du ma ko baal dara tey moom xam naa ne daana songante gaay mais tey dina dina dégg tey loo xam ne mos koo dégg xam naa dana ma ci tontu lu mos lu tontu kenn. ëpp naa def dégg lu mos a ko dégg. parce que faa da lay wax ak yow te combat bi am na enjeu boo xam ne mi combat booy Niang ak Modou Lo roi des arènes waram le premier janvier fee ci arène nationale muy combat boo xam ni adduna bi yëpp nga koy xaar ñoom ñu gis ñi nu ëmbee booy Niang ànd ak moom di ko jàppale. baax âge loolu nekk lu yàgg lool moom ak feeram am Kandji ak Moustapha Kandji euh, muy diggante boo xam ne du tey euh, lu démb la ñu war a partagé moom la ba ndax la premier li ci des pareetul Medoune laa ci àndal ak Seydou ñu bàyyi ko mu nuyoog internet ñu doon ci waxtaan yi dafa nuyu naa la. jërëjëf Hadj Fadel l'homme maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu El Hadj Medoune Diouf borom improd moom it di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu Seydou sa caméraman. waaw di ziar euh, fidèle internaute yu Dakar Buzz ak improd di ñaanal Sénégal gépp di leen nuyu di nuyu waa axlu làmb aussi di nuyu waa fii nga ma fekk muy waa Médina plus précisément ci rue 23 bi vraiment euh, di leen jox seen wàccuwaay ñoom tamit di rafetlu teewaay bi quoi jàkkaarloo ak yéen parce que yéen en dehors de làmb suñu ay nit ngeen ko su ma waxee suñu ay nit nag mooy dañoo bokk lu ñu bëgg daal ba pare yàlla dogal ñu bokk Cheikhul Khadim nga xam ne mënuñ koo séddoo parce que après lépp mën nañ koo séddoo sauf loolu waaw yow wax Médoune ngeen nekk ay nit ñu baax nit ñoo xamante ni vraiment bi ngeen ñëwee ci métier bi ak léegi da ngeen a yokk mais wàññiwu leen daal kon damay am chaque jour contentement seq ak yéen waxtaan jërëjëf euh, Tafa yow loo nga wax ñun moo ne ci yow mais ñu dugg ci combat bi ndax temps amatul ndax le premier li des bëreetul Tafa enjeu combat Boy Niang Modou Lo dafa teel a déclenché ba gis nañ jàkkaarloo bu bi rek coow am na fa ba daanaka xaw tuut féet féet bi yàqu mbër mee toll noonu wala combat bi toll noonu wala Boy Niang moo tiit ba tax chaque jour de muy provoqué Modou Lo ci bul ma laal bu ne ko dama lay laal puusal du ma puus. waaw bi moom am na enjeu combat am na enjeu parce que combat royal la te bépp mbër boo xamante ni da ngay dugg ci làmb da ngay aspirer benn jour nga bëre combat donc loolu am na ci enjeu combat bi beneen enjeu bi aussi mooy xam nga Boy Niang gox bi mu dëkk mooy Pikine Modou Lo li mu fa def xam nga. ñëpp gis nañ ko loolu aussi enjeu la ci combat bi ba pare nag euh, bul ma puusal puusuma yooyu nag c'est des choses yoo xamante ni des fois ci signature bu ci am kenn du ko programme ay mbir la yoo xamante ni day ñëw rek spontanément quoi xam nga entre diggante mbër ak mbër ba pare aussi gars il faut ñu bàyyi xel ne nag dañoo nekk ci làmb nag waaw ci làmb lañ nekk daal maanaam nekkuñu ci ci ngana la ko jóge wala ci ngénte wala nangam ba nga xam ne da ngay ñëw toog ege wu ci làmb lañ nekk ah. ñoom ñaari mbër yi dañ leen fay vraiment pour ñu waxante xam nga après bu bis baa ñu xeex bëre. Ah. waaw donc lii moom génnul laam ah, parce que dañu gis euh, Boy Niang def ko diggante ak Balla Gaye bala Gaye ne ko bul ma laal dama lay laal Boy Niang indiwaat slogan boobu puusal bul ma puus def na ko korog seen jàkkaarloo ba 2STV bi ak Modou Lo defaat ko korok lan la dafa jàpp ne loolu bokk na ci koy dugal ci combat bi wala wala wala lu mu ko digal la. non booy naa mu jëlee avance bi la dugg ci combat bi. ah lamb di nga bàyyi ba mu des ay 20 jours ngay door a xool lu la ciy dugal yooyu mooy comme li ma la wax rek c'est des choses yoo xamante xam nga nit des nga nekk ci benn affaire jékki-jékki rek benn affaire ñëw ci yow directement loo xamante ni programmé woo ko loolu la woon quoi loolu la woon rek ñëw. bon parce que dañ leen wax ne rek ñaari mbëri kaay leen taxaw booy ñaar ju xam naa xaw a gën a njaf lax rek yaa ngi dégg xam nga rek ñëw taxaw ci karaw loolu kese la mais puusal bu ma kay mais wër ma jàll dem waaw mais bu fekkee nga taxaw sama kanam nag amu ah. fu ma jaal siège yaa ngi ci siège ko baax foofu kay yaatu woon na Modou kay nag vraiment maa ngi koy nuyoo passage di ko ziar waa baax di ko jox wàccuwaayam hmm. waaye nag làmb moom làmb noonu la de làmb moom làmb la hmm. waaw dañuy làmb d' accord ah, ah, bu mel ni loolu tam bu ñu déggee ci nit ñi d'après ñu ne Boy Niang lii mu def Modou Lo est ce que baax na ci moom parce que lii dafay gën a poussé Modou Lo ci kombaa bi ndax nit la ko xam dafa nitu défi la te ak ni ko Boy Niang ko métti lii mën na gën a dugal Modou Lo ci combat bi te loolu mën na a baax ci Boy Niang wax jooju moom miin nañ ko ndax bañu jàkkaarloog Balla Sorano bañ ci jógee dañ ne liñ def ëpp na ndax dugal nañ Balla ci combat bi làmb nag bu fekkente ne da ngay bëreeg mbër di xaar mu def la dara pour nga dugg ci làmb ji ah loolu moom ah alhamdulilah rabbil alamin bu dee Modou nga door a dugg ci làmb ji keroog alhamdulilah non mais dugg na ci làmb ji mais xam nga tam loolu est-ce bu ngeen jël parce que boo ñaar d'habitude daawul def yooyu def na ko na ko mu réussir mu ne naa jëlaat loolu arme la ku may dajal daal li ngay bañ laa lay def ba keroog làmb loo ci mën a dégg daal euh, Fadel mooy làmb moom soo ci dëgmalee bëgg koo gañe tous les moyens sont bons noo mën a def ba gagné ba gagné sa adversaire rek baax na. Hmm. waaw ci lancé boobu daal lañ nekk. mais am na benn baat bu mu de la non violence. violence ngeen booy naa booy naa yi ne pas violent loolu du violence xam nga gars yi léeg-léegi damaa bëgg ñuy rafraîchir mémoire yi tuuti. Modou bëriwu feeg Eumeu Sène ko am lu mu ko laalale si xëpp ko ñebbe gars yi laaj bu ma sama seriñ bu ma ko sama sëriñ digalaatee ma def ko ah mais booba ana non violence lamb Boy Niang li mu def génnul ci lamb Boy Niang saagawul Modou Lo dóorul Modou Lo dama ci leen dégg non saagawu ko dóoru ko du koy saaga taxawoon taxaw naa nga jàkkaarloog man puusal puusuma mais loolu lamb la génn. bu booy ñaar def pour jéem a natt Modou Lo wala dara. moo déedéet Modou du foofu lañ ko nattee de. lu foofu lañ koy nattee mais nag mais nag loolu daal laa bëgg gars yi rafraîchir ci seen mémoire que ne puusal puusuma il faut pas que loolu ñu bëgg ci jaar xam nga pour bëgg a booy bi am na face to yu gën a tàng li booy naa def ak Modou Lo te après dañ koo jàll jubli ci leneen parce que xam nañ ne làmb la ñaari mbër yi dañ leen fay pour ñu ñëw waxante xam nga su bis baa ñu xeex bëree mais puusal puusuma rek vraiment amu ci nag ay noo civilisé ak yooyu nag wax dëgg yàlla am nag bu ñu ci ginnaaw moodu lu ne def na ko mbër nag waaw magi làmb bu toll ne Bécaye nee na tey jii bu fekkoon ne ay point la tooñ ak ñàkk tooñ tooñaa moo tooñ ah Père Bécaye waaw maa ngi koy nuyu di ko ziar <laughs> Père Bécaye daal moom moom mooy làmb moom su waxee rek boobu si waxee rek wax ji day daal di ferangalaay mais ñun jàppee wuñ ko tooñ quoi dañ jàpp ne xam nga contrat moo ñu boole rek en plus loolu lépp ci neexaloon bis bi la voilà ci neexaloon bis bi la nekk rek lu garaaw amu fa non amul lu garaaw non non parce que su fekkoon sax boo mu def ko bumax boo ñaa dóor ko sax ma nen ne ala voilà mais bumax na ko boo ñaa jël position pour xeex ah, def ci waaw affaire yooyu voilà xam nga loolu moo lay wara ne la ñun ñëwuñu pour yàq ñun ñëwuñu pour yàq parce que dégg naa Modou ne ko <laughs> soo ñëwaatee waaye dama ne dama ma ko non loolu garaawul. booy ñaar it defaat li ma defoon. waaw mais loolu garaawul Modou bu dee dafa am lu mu buuxal booy bi na bàyyi ba le rek parce que moom bu jekkoo booy bu mu ko mooy parce que suñ ko jekkoo duñ ko mooy. Hmm. non loolu moom dafa leer. te man fooree naa ci wéy ah, fii mu toll nii. dañoo jekku moo tax ñu ne leen bu leen yàq bés bi moo tax jéemu ñoo xeex xam naa kanji kanji. ah ci weewu nag wala. weewu bëy la wax ci nag weewu bëy la la. non non c'est jëlee information dafa grave. non non non non làmb Fadel làmb kenn du ko bëree te jeexagul. waaw ah, léeg-léeg da làmb kenn du ko daan te bëree goo ko gis nga léeg-léeg damay dégg gars yi di ko wax gis nga gars yi li ñuy tooñ nii di wax naan kanji kanji non kanji kanji yi. dama lay expliquer benn affaire non non gars yi damaa bëgg ñu kii benn c'est que léegi-léegi non wallaahi je suis très sérieux nag kanji kanji yi maanaam duñu dara ci affaire yi non non parce que xam nga lu ma lay wax loolu mooy yàgg nañoo ànd ak Boy Niang Boy Niang bëree na ñu ànd ak moom mu daanu mu bëree ñu ànd ak moom mu daan yàlla suñu borom jalla jalaalawoo yaajal jalaale wal ikraam ñun ci moom rek rek rek rek rek ci lañ wàkkirlu parce que xam nañ ne moom mooy maye moom mooy xañe moom la ñuy ñaan su bis baa yàlla suñu borom suturaal ñu may ñu ndam lu seddu guy mais pas comme ni ko Diouf xam nga Diouf moom daa bëgg coow. ay dañ na leen da a jékkoog déedéet làmb kenn du ko daan te bëree googu. d' mais mais mais daa ngeen ànd ak di ko ëmb yàgg na relation bu yàgg la wax naa ko sànq bi mu bi mais at yi mujj yi ni ngeen jëlee Boy Niang en charge téye ko en main par rapport ak ça parce que gis neen ba ci combat bi passé saa bu ñu waxee nga ne faral. ay xale lañu may dañuy làmb dafa mel ni biddiwu làmb bi dafa ñëw maanaam da ngeen a xam biddiwu kër yu baax yi lan la parce que da ay xale lañu may dañuy làmb ah loolu naa ñëw non non yooyu non yooyu ay kii la rek ay slogan rek xam nga pour xaw a neexal bis soo ma laajee ma ne la non ay xale lañ mais dañuy làmb yooyu ay slogan la xam nga waaw ay slogan la mais mais non non Fadel yàlla non non non noonu la demee ay slogan la rek yoo xam nga pour neexal bis la rek chef euh, chef nag des fois genre euh, sénégalais gars yi dañ dul xaw a comprendre ñoo xamante ni léeg-léeg dañuy ñëw pour taaral bis bi xam nga soo ma laajee ma ne la xale lañ mais dañuy làmb slogan la parce que làmb jooju moom xam nga coow li moo tolloon foofu mais daal ñun daal ñu ngi ñaan yàlla suñu borom daal mu suturaal ñu. am mbir moo xam ne it boo ko gisee ak seddaayam bii bu duggee ci géewu làmb leneen la soo ko weddee demal nga tàllal micro Masata wala Sa ci biir géew lan la leen kiy wax. loolu de Sa Touba dina dem. non non non Sa Touba sama bokk Touba. sama mbokkam taalibe la taalibe Serigne Saliou maa ngay jaar bu baax grand Massata aussi maa ngay jaar moom suñu grand la grand bu baax ñoo ngi koy jaar bu baax a baax noo baax non c'est xam nga làmb nag léeg-léeg géewu làmb soo fa dajee ak surtout nit koo xamante ni da nga xam sa wala xam nga da ngeen ni da ngeen ni mel ni ñu toog rek ci kaw tribune bi déedéet non non da ngeen ni waxtaan xam nga kaf fooree daal parce que ñun ñëpp après ñoo far làmb ji day jeex mais relation humaine bi day des mais maa ngi dégg Alaaji Masila Diop borom kajoor maa ngi koy ziare bu baax. borom Modou Ngom. waaw waaw maa ngi koy ziare bu baax mais alaaj ma si la nag man maa koy ñaan quoi. na bàyyi waaw euh, doom yi Ana Seck ji Momadou Ngom xam nga loolu du actualité. ah peut-être foofu la mën a jaar pour jàpp raw jàpp rawaan bi rek. xam nga xam nga ne képp kuy takk ngemb fii ci Sénégal xam nañ ni nga tudd xam nañ sa turu waajur xam nga loolu du actualité. Momadou Ngom ji da koy bi. loolu nag du làmb ja. parce que ñoom ñooñu foofu ñëpp kenn ku ci nekk tàkkusaan jot na nga ngeen mbër ñëw mu dégg mu ñor du dëgg donc loolu Mamadou Ngom doomi Ana Seck loolu du làmb ja a ah mais xanaa loolu dafa am lu mu jiyee ci seen bopp. Ah, ah. loolu ñëpp ko di. parce que moom mi ngi koy répété lu bari ñu bari dañoo jàppoon ni Boy Niang Modou moom moo leeral Modou Ngom. waaw yow Modou su bëggee ñu yokkal ko ci turu Père de Gaulle. ñii du question sax wóolu fi ñu jëm mais damaa xam ne loolu gañewut làmb ah bokk na ci parce que nit ñi d'habitude bu ñu xamee si tur yaay mën nañoo jàpp. pour Modou Lo xam nañ nu mu tudd xam nañ tur way juróom mu mais est-ce que dafa jaar may taxaw ci écran yi di ko wax. jaru ko c'est pas def ba xam tur Modou Lo ak nu mu loolu du làmb parce que loolu demut ci biir géew ba biir géew ba. moo déedéet biir géew ba xam nga lu fa nekk indi entraînement bu wóor indi stratégie loolu moo fay gañe mais Mamadou Ngom doomi ànd sekk yooyu mu bàyyi ko daal. non même bu ma bàyyiwul sax mais dafa gaax na ko loolu détail la rek loolu daanut booy ñag de. booy ñag doomu mbër ak wàll yi la de. Euh, li nu jaaxal mooy toujours combat booy Niang euh, ba bi passé maa ngi mi du doon xëy taal suñuy oto dem kër booy Niang pour jël départ booy Niang fekk nu fa picc te même ñi ni ci biir koñ bi xamuñu fu booy Niang ngemboo mais lépp for na ci wewu bëy xam nga ñun moom maa mi du ci wewu bëy dañuy jëlee mhm. ni ni Boy Niang njaay njaay euh, euh, kaaj kaaj yi jël nañ ko ba làqoog moom fan ngeen yóbbu woon boo Niang ba kenn mën koo teg ba xam nga Siteu 1 fi mu tuxu woon nekkul foofu fi mu tuxu woon xam naa fa mais ñun foofu lañ déparé ñëw fële na nationale ba fan ngeen gembo foofu non non ci kër googu foofu ñun fa la ne non ngeen da ngeen a jékki-jékki rek yéen daal di ñëw gis oto yu ma gaare noonu mais ñu ngi woon ci biir kër gi Boy Niang génnul pikin ñu dégg boo Niang Sambé la ngemboo Sambé dafa sori de Samba daa sori ah. <laughs> ak fi ak Ila Touba yi kay boo boo oto yi boo fooj. <laughs> non non non booy naa ngeen boowul Samba booy naa biir Pikine googu Pikine nag duma la ci wax fan mais ci biir Pikine googu moom génnuñ ko. Tafa booy ñang mën na am combat bu toll noonu ngeen boo Pikine te xam ne fii la ngeen boo. ah bien sûr. mën gas suuf suuf terrain la ngeen boo bokk suuf terrain suuf naa ah naa nekk mën naa nekk de biir Pikine googu de génnuñu ko. ñu gis nga dugg ci laaj laaj Fadam bi tam wax ci ah bon mel ni ne Modou Lo mel ni si que Modou daal amul yenn yenn yenn yenn yenn salo yi ci ci mbër parce que ni ñu gisee nga communiqué dafa mel ni da ngeen ko jàppee comme mbëru mbër yu ndaw yooyu daal. non c'est un très grand nga waxee noonu. nan laa waxee. da nga ku ko dégg ni ma ko déggee ak ñu ko ñu bëri déggee danoo ja mbër la comme mbër la boo xam ni comme nii nii rek xam nga comme si que benn fanel bu taxaw. déedéet mais non Modou avant tout dama lay wax ne la. man Modou champion la Modou dama koo jox wàcc waayam ba nit ñi yaakaar mujj ne dañ koo ragal ñun parce que champion la parce que yàlla dogal na bi ñu dalee seetaan làmb ak léegi yàggul mais li mu fi def ci biir làmb bi muy commencé fi la ñu fekk li ko indi fii aussi xam nañ ko ne njàmbaar ak fulla ak fayda la kooku champion la ndaanaan la wallaahi Modou loo ku la ko sous-estimé loo bu la daanee kooku moo la tooñ Modou loo du adversaire booy prendre à la légère wala di ko sous-estimer c'est un très mais dama ne léeg-léeg damay dégg gars yi di wax mais j'ai l'impression que ne Modou Lo comme malaaka la dafa doy waar rek dafa bëri ba ñu tuddee ko xarañ waaw waaye nag génnul nit non mi ngi nit day bëre malaaka du bëre génnul timit mbër mbër la doon Modou loo bëriwut daan ankay bëriwut ñu daan ko ankay mais foofu laa waxee moo tax ma ne leen mais amul dara lu spécial ci moom parce que mbër la moo xamante ni bëre na daan bëre daanu li spécial ci moom mooy bi muy dugg ci mu dafa tollu ni yenn mbër yi mais jom ak fulla tax mu puuxante ba nekk roi des di daan mbëri avec la manière moo tax mu yéem ñu bari. booy ñaa bi muy dugg ci làmb 80 pour cent dañoo pari yoon Père de Gaulle bul sonal sa bopp kii mënut a doon mbër mu xëy tey bay bëre titre roi des arènes. sëriñ si génn nag def déclaration yi ak ñu ëmb boo mu Lo yëpp ku ci mel ne ay Sa Touba ay Masila kenn ku nekk jël combat bi emmène suma combat la est-ce que amul lu mu def ci yéen. waxu fan si dañuy dañoo xer dañoo bëgg. ñooñu di ay sëriñ yor seen cours di ñaanal. waaw dañoo bëgg Modou quoi foofu laa waxee. waaw non ay sëriñ lañ koy man nangul naa leen jox naa leen seen wàccuwaay mais dañoo bëgg Modou laa moo tax ma ne fan dañoo bëgg Modou ba pare yéene la ñuy waxee xam nga pataas ma daaxal pomme de terre moom kuñ ci tëj sa avocat baaxul. nangul naa leen ñoom li ñu wax waaye <laughs> nañ bàyyi ba dem ci ba ñëw ba le premier incha allah. Massi la moom jarul ngeen ci tiit ndax moom sax bu xam naa xaw na leen tiital mais def na déclaration ni woowagul ko xam naa sax foofu xam ngeen fee am benn ato ah, en ah, en wa waaw wax nga beneen déclaration ko daa mel nga waaw dafa moom na lamb ji borom kajoor maa ngay ziare moom naa bëri lamb waaw baax la ba pare wala daw bëgg ko dafa ñeme engagement alaaj nga ah. dafa ñeme engagement nee na nee na Modou Lo lii da la xam nga nag moom borom suba moom da nga koy borom suba rek suba da nga koy bàyyi rek daal alaaji ma la daal xam naa ne bii baa sax bëgg naa mu wàcc parce que xaw naa gëj a wàcc wàcc waaw waaw da ngaa bëgg a féexoo moom ci biir géew ma féexoo alaaji masi du ma comme ku bokk ci Modou Lo bu wàccee di ngeen féexoo non non mais damaa bëggoon ñi gëj a ñëw ñëpp ñëw masi la wàcc seen siise suñu siise siise bu bëgg ceeb moom gis naa ko contre ama mu kii moom tamit waaw waaw bëgg naa seen siise moom tamit ñëw saa moom day wàcc saa moom mooy jiite affaire yi saa masi la ak seen siise daal bëgg naa ñu def benn rang bu baax taxaw. yow nga ne kan. non non man man sax mën naa bañ a mën naa ah, <laughs> man naa bañ a ah, mais xam nga nag lii xew suba moom borom suba rek moo ko xam. Ah, waaw mais dañuy wakiirlu rek ba pare sabab mais yàlla xam na ne Boy Niang numéro 2 mi ngi ci lu ko mën a may ndam ci digganteem ak Modou parce que dañu gis sorti Modou Lo bi passé euh, euh, stratégie yi mu indi Serigne Sos yëpp ëmb ko ànd ak moom ci ëppal presse bi di ko gunge koo ci gis mën a Fadel combat bi suñu combat la dañ koy daan avec la manière yàlla def loolu am ñooñu tey bu boo waxee da a dajeeg ñooñu ñooñu ñëpp nekkaat seen ginnaaw tey. waaw kanji kanji xam naa téye réew mi na mais non non non téye rek xam nga des fois damay di wax benn baat dama naan ku war ñay ba wàcc loo war day tuuti ci yow comprendre nga loo war rek day tuuti. soo waree ñay ba wàcc loo warati rek day tuuti garaawul moodu xam nga ñi koy indi c'est normal parce que ay nitam lañ mais loolu wax dëgg yàlla am dawul suñu yaram quoi parce que Modou day ànd ay mbokkam Boy Niang day ànd ay mbokkam kenn ku ci nekk ñaan lu ànd ak ñi nga war a àndal ñëw après nag dernier décision bi suñu borom moo ko mu ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom mu suturaal ñu rek le premier may ñu ndam lu sedd guy ci kaw Modou loo dafa enjeu combat bi ci côté Boy Niang diis ndax boo xoolee euh, xaritam doomu ndeyam génn. ñàkk muy combat bu Pikine amoon yaakaar ñu ngi koy encouragé euh, parcelle ak waa Pikine ñu xam tam làmb ji foo ak la te à door da tam relation yi day continuer dañoo bokk parcelle kenn mënuñu faa génnee waaye dañ faa am titre foncier mhm. moo xamante ni suñuy rakk di fa yeewoo su ma neexee ma fanaani fa Pikine dañ fa bokk dañ faa am titre foncé di fa yeewoo kon ñaari gox yooyu parcelle mën naa ne la Pikine moo jur parcelle sax ci wàllu làmb mhm. comprendre nga kon foo xamante ni dara xaju fa bu fa kenn xaj-xajal dara làmb la nag boo xamante ni kenn ku ci nekk ah njar ndéem la waaw làmb foo la agré mais ku daanu rus mais dama bëgg lépp ñu koy def ci esprit sain dans un corps sain lii jur sportif ci xel mu sell xam nga xam ne làmb ju ne am na fi te bu xëyee dañ koy waxtaanee ñu xamee ko noonu quoi ñaari ndamay dugg benn mooy génn ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay am na ñoo xamante ni ñi ngi ànd ak Modou mais samay wëllëre la seex naa ak ñoom jàmm. Modou Lo aussi am na ñuy ànd ak Boy Niang ñoo xamante ni seex nañ ak ay waa kër Modou Lo waa kër Modou Lo jàmm te après ñun ñëpp lay daje saab. seen diggante ak de nee na koy wax na Zarko nee na Modou ah, <laughs> ngi encouragé Diène nag suñu frair vraiment di ko encouragé bu baax di féliciter Zarko Zarko kat loolu kese la mën a wax. waaye yu loola Lo la. ci gerte gi ku bokk ci gerte naan ci. mais kay nee mi ngi xaar sax Modou daan Boy Niang mu jël Boy Niang. Zar moom te ma na kii ñaabu ndaw ba pare na <laughs> bàyyi ko ba mu génn ci ñaabu ndaw ba pare. ak li mu def barki démb jéen. waaw mais làmb la rek. gis nga kooku tiitalul tiitalul ñaabu ndaw. non ñaabu ndaw xale la maa ngi ko ñaanal yàlla suñu borom moom it mu may ko ndam lu sedd bi ci kaw Zarko. non ñaabu ndaw leen la la bëgg. Zarko la dëgër la soxla. la day delloo xanaa signé wuñ contrat. Ah, moom daal waxam la bëgg-bëggam la ko loolu mën naa bañ a antu yi. ah waaw bëgg ak li nga li am nag mën naa bañ a doon benn. parce que contrat bu fekkee rek ah, boo ko signé devant un huissier que loolu jot na ci am. est ce ah, de moom la si jaaxal loolu. damay delloo avance. moom la daal mais Zarko daal moom na daal jàmm rek na nekk jàmm. xelam de booy ñaan ci ne. bu ko neexee nag parce que borom bitigu mbagg boo xar xool ba nag maa nga see mag nga see fekk moo tax Boy am na mérite de. pourquoi am na mérite. dama xam ne dafa am mérite rek. ci naka. c'était pas évident quoi c'était pas évident mu agsi fii mu agsi nii. wallaahi azim xam nga <laughs> Boy Niang dafa commencé début carrière am mu neex. mu dem ba ci digg ama neex freiné na ko. këf ko mu bërewaat avant jos di ko daanaat mu bërewaat ci diggante bi nekkaat ci benn lancé après jos daanaat ko. léegi nag après daanu jos boobu noonu après daf ci jëlee benn sanction boo xamante ni ñëpp dañ na woon aanu ah, wuu noo jeexal na cinq ans doo bëre après ñu tolloon période yoo xamante nii nag suñu maire aana dafa lay kafe bi maag père dëgal duñ ko mën a jeexal doo gis kenn koor googu ci buntu gi basang la ñuy lal man ak père dëgal mais booy bi des fois ndeysaan mu wàccee ci néegam ñëw fekk ñu toog maag père waxtaan mbër yaa ngi toog non affaire yi dina baax de il est très courageux moo tax léeg-léeg su ma gisee nit naan non tapette la wala dafa ragal loolu daf may def ay reetaan. mooy loolu nee ko dangay ngay cof di beru rek da ngay cuut cap na nga waxee xaw ma. waaw bu leen bu bu la premier incha allah Modou dina xam ndax dañuy cof beru wala bëggoon naa ñu seq waxtaanu biir ak ñoom liiru de. ah. Mhm. waxtaanu biiru ka ça veut dire. ñoom laa wax waa waaw ñu waxtaan ak ñoom liiru jaan <laughs> waxtaan wi lan lay doon. waxtaanu biir néeg rek comme mën na koo génne waxtaanu biir néeg rek gars yi wax leen pour ñu xaw a kii daal ñu xaw a respecté booy bi tuuti. parce que doonu gis booy ñaas communication toujours su bu ñu jëflantee ba pare di nga ma respecté. nañ ko respecté tuuti na fi ne su ma yow ba pare soo ma rombee ne ma capot laa ma jooja jàll na jëflante waat suma jëflanteeg yow ba pare nga xam ne jëflante nga ak booy bu saf-saf loolu jàll mais ba tey gars yi dafa mel liñ bëgg a dégg la ñuy dégg wala liñ bëgg a gis la ñuy gis mais bëgg naa waa parcelle bu dee cinq pour cent sax nañ ko respecté booy bi. est-ce que Boy Niang tam du bàyyi xel tam parce que moom it côté boobu dama ko wax tam Boy Niang parce que tam ni mu ñemee Modou Lo tam na ko bàyyi xel trop xam ni Modou Lo du de. ah mais Fadel daal vraiment li ma la waxoon Modou daal respecté nañ ko champion la nangul nañ ko fi mu agsi ci làmb ak ay qualité gisuma lu nekk ci Modou loo xamante ni war naa mën a tax ñu ragal ko honnêtement ku jël sa avance dalaa bëgg a daan. Mm-hmm. Mm-hmm. na nañu mbégte ak waxtaan bi ñu a yow tey bu fekkee dafa am loo war a lancer loo xamante ni laajuma la ko lan lay doon. xanaa ginnaaw bu la première jàllee incha allahu rabbi dañuy dëgmal bis la 14 janvier boo xamante ni Tapha Kandji mën naa am day summi mbubbu ay proche Boy Niang indi maanaam membre ETDR Events. ñu tëgg ci nag ñaar bis boo xamante ni combat yu am solo moo ci am ñaari rek laa cité combat spécial bi diggante caatu yoof ak ñax jariñu. combat gënu koo rëy. combat bu rëy la. combat amateur la. dama ne waa boobu sax combat yërmande laa ko tuddee. ndax xam nga ñoom ñaari ñëpp ci li ñu jigee tax. ku ci daanu kay day métti. waaw te kenn mën ta bañ ñu dem ci grand combat ba jëm ci fils de Balla. mi nga xamante ni gars yi ñu bëri dañ ne mooy doonay Balla Gaye nag. loolu waxin wàcc bëre ba. ñu bari wax nañ loolu. nekkoon ci benn élan yàlla du ma wax tardé yàlla suñu borom indi ndog-ndog moom aussi bi muy départ ñëpp prédiroon ne. c'est un futur tigre boo xamante ni liñ doon gis ci Moustapha Gueye mi ngi ci moom. mais ñu gisaat Lac ci combat bi nag boo xamante ni Lac Rose bu gën a sérieux ci entraînement gis ko muy ñëw écurie Fass ñoom Serigne Ndiaye di ko dar donc làmb joo xamante ni boobu aussi njarndeem la. muy ñaari mbër yu am sañ-sañ. muy ñaari waaw muy ñaari mbër yoo xamante yu am sañ-sañ. ñooñu moom kenn du tardel amateurs yi ci stade bi. ETDR Events nag ñëwaat ci mais soo été déggee ETD ETDR Events xam na Kañ Production moo jur ETDR Events te ETDR Events peut-être mën nga gis euh, Tafa Kanji peut-être mais dafa am ay ñeneen ñoo xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw mën naa citer ay quelques tours Matar Ngaye manager général bi président Gora Xaarim Anta Seck moom mooy PDG Kañ production Xaarif Anta Seck. moom mooy PDG Lamb. waaw waaw xam nga gars yooyu et d'autres ñooñu ñoo ci nekk di doxal moo tax chaque sortie ETDR events rek c'est un événement événementiel la quoi di ci woo ñëpp nag vraiment di ñaan bis boobu aussi yàlla suñu borom taaral ko ba réussite biñ ci bëgg yàlla defar ñu ci lu kawe suñu njor dina am ambiance. waaw loolu fa laa jëmoon mën a xaar parce que bis la boo xam ne combat gladiateur la ñi ngeen boole. dina am cosaan ak aada. face to face yi ñu ngi koy xaar. waaw bokk na ci li pour di xaar. waaw face to face yi xam naa ne yaakaar naa ne bu ñu jugee ca le première bi parce que. <laughs> bu ngeen féete wala bu ngeen <laughs> parce que làmb moom daan daanu match nul moo ci am te après Boy Niang Modou aussi vraiment nag dañu ah ñun tamit dañuy continuer di dund. c' liggéey la. non liggéey. xelamal ci combat yu mag a bien sûr pourquoi pas. pourquoi pas après premier janvier dañuy continuer di dund di doxal suñu ay activité di ci ñaanal rek suñu boroom nag wax dëgg di ko tàllal suñu ay loxo yàlla nañu yàlla suturaal le premier janvier may ñu ndam lu sedd guy. ngeen nekk futur roi des arènes. incha allahu rabbi yàlla na sa gémmiñ am barke setu buur bi. <laughs> jërëjëf di am mbégte di ci di ci ñaanal tam suñu frère Kandji. Kandji production ci li may wax rek nit ku nit ku baax comme moom nit koo xam ne li tax ma gën koo naw mooy social bi. fu ma teggi sama tànk rek Kandji teg fa tànkam muy ci kaaw xaadim muy ci kaaw bari na ci yoo xam ne tey euh, ba ci ngi fay dugal ay loxoom ñaqam ci xaru tabaski ci lépp euh, ndax dëgg yàlla mu ñut ku baax may ñaan journée mi yàlla may ko ci réussir totale ndax lu baax li muy def bu ko yàlla fayee xolam rek euh, combat fils de Balla Lac Rose mën naa dàq sax combat mut Lo Boy Niang ndax baax baax rek koy fay Kandji ñu ngi ñaan yàlla may la ci ndab tey itam lan ngay tàggoo jël nañ da ngaa ci liggéey. waaw xam nga tàggoo bi nag fi ma koy njëkkee mooy di nuyu waa Touba Daaru Rahman bi nga xamante ni bu sëñ at bu borom dër bi nga xamante ni fa lañ juddoo. waaw fekk fa baax ba baax di ñu fa bëgg a fekk. ñu ngi leen di nuyu di woo njabootu sëñ at bu borom dër bi di woo njabootu sëñ Cheikh Daaru Rahman ma ca pencum boppam. di leen tàllal suñu ay loxo. di nuyu aussi waa Sagata. waa sagata jolof waa ndaraame jolof waa waa lonkaan waa ñiiwi ñooñu ñooñu bu ñëwee ndax dana baax waa cooyeen parce que ñooñu ñuy woo suñu ay mbokk lañ ñun foofu ñun foofu mooy suñu cosaan tour de famille yi ñuy def foofu lañ koy defee donc nit nag saa boo dëgmalee bis wax dëgg yàlla da ngay woo say mbokk di woo ka fu kanji kanji nekk ñu ngi lay woo ñu miin alxuraan fu nekk ñu ngi lay woo ci bis bi xalima ba jaal maa la wax aussi waa waa Sambé comme ni nga ko waxee nga xamante ni foofu la papaay Boy Niang soxi ko foofu aussi mooy cosaanu booy Niang di woo waa Thiès côté yaayam di woo waa Tivaouane di woo waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di woo waa kër Cheikh Abdou Khadir Jeylaani waaw waa kër Cheikh Yirim Ndumbaan Seck diwoo woo waa waa Ndiassane di woo waa waa Ziguinchor yi ñu ngi leen di woo waa waa Casamance yi ngi leen di woo parce que Boy Niang dafa am ay nit yoo xamante ni bi ñu dëkkee Cité Fadia ñu nax ñoom ñoo boo ñoo jàkkaarloo woon ay kër ñooñu yàlla daf leen booleeg booy ñang waa bajaaneen dëkku ëmma seen dëkku ëmma waa bajaar yi ak bajaaneen ah. waaw kon mi ngi ci wetu Mali Fara. <laughs> déedéet déedéet noo bëgg ñooñu woo ñooñu quoi waa Adéane eh? ah waa Kaolack aussi ñu ngi leen di woo. waa Kaolack borom waa Kaolack ñu ngi leen di woo. di woo waa Diourbel Gosaas. Fadal ñi ngi woo ñëpp. di woo waa Tëngéej. Ah. waaw waa ñu ngi leen di woo ak jam ñaajo parce que fii ma lay wax nii yëpp kaar dafay jóge booy nag dafa am ay ay fans club. waaw ba Gambie am nañu Gambie. Capacoli national international. waa Pikine doo leen woo parce que. seen bis la nit li nga bokk. waaye doo xaar ñu la ci woo xanaa kay dañ leen ni rek gën a ñaaxaat. di wax na leen Boy Niang seen doom la buñ jëlee mbalit xëpp ko seen doom la buñ ko sangee seen doom la. pikinois la ba pare ndam li macha allah pikin dañ ko soxla te xam nga ay nit suñu bokkee dara rek dañ koy jéem a rafetal. yàlla na suñu borom musal leen ci seytaane te suñu borom musal leen ci seytaane yàlla na suñu borom musal leen ci seytaane te yàlla na yàlla tàppe xol yi Fadam li ma yéene sama bopp ma yéene la ko du tax li ma la yéene am waaye dina tax man. ma am jàmm parce que du caage ne dama bëgg dara ci yow rek que li ma bëgg wala li ma la yéene day am parce que yéene lu rafet la rek mais yàlla suñu borom mooy mottali yàlla nag soo ko gëmee ba pare da koy wóolu wóolu bi mooy lu am nga nangu ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ko dogal ci man yàlla moo ñu bind moo ñu sàkk yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp ba pare moo gën a xam li baax ci ñun ñun dañ ñu koy bàyyee suñu bopp lu ci moom mën nañ xaar boo Niang bu ngemboo Pikine wala nam defoon lay def. incha allahu rabbi fa lay ngemboo këram soo fa ñëwee sept heures si kàttanu suñu borom boo ma wooyee ma génn. xam nga li dooy waar mooy ñoom bu xasee ba am combat sax seen jëkk njëkk a jënd ay piis bees. kenn doon leen jox. déet déet déet Diouf mii sama 540 sama numéro la ma jëlee. 5 5 jours avant combat Tapha Kane jotoo ko jot fenn. <laughs> non Fadel barke Sëñ Ba ba daal xam naa ne su ma leen toppee daal. 5 jours avant combat. waaw bul jot Tapha Kane yoo ko jot fenn. pourtant nag bi daal xam nga ñun suñu làmb. ñun est xam nga ba jouru làmb ja ba heure bii ñuy waaj a dem boo ñëwee fekk toog gars dañuy teg attaques yu waxtaan maanaam làmb ji amul pression quoi diisul daal wax dëgg yàlla am làmb ji diisul daal parce que tamit làmb kese la làmb dong la nag wax dëgg non non non non non mënut a génn làmb dañuy bëree dañuy bëree ci fula ak ci fayda rek ñaan yàlla suñu borom daal mu may ñu ndam rek may ñu ndam daal ci kaw Modou Lo yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Modou Lo Modou Lo nag sonal na taram moom tamit xarañ jërëjëf mbokk yi kon yu wàcce suñu kàddu di dem ba beneen yoon ñëw euh, seeti ñeen ci côté Modou Lo waxtaan ak ñoom ndax loolu waaw fii nga ma fekk waaw ñoom aussi fii la dëkk neexee waaw ma dëkk ñoom dëkkin bu rafet waa Medina ñoom tamit yaa bi waaw waaw maa ngi leen di woo ñoom tamit parce que waaw parce que fii normalement kaar war na fee jógee waaw Modou Lo mbaru réew la waaye Boy Niang it réew la. léegi boutique bi ci lan lay yëngoo ndax tam loolu buñ fii mooy Cheikh Bamba lumière borom lumière yu baax yi. waaw Diouf ku bëgg lumière yu baax ñëwal Régis angle 23 ci Bamba lumière. waaw ETDR. lumière la lii tamit ci ETDR la bokk. Ah, numéro bi di 77 757. 98 85. soo fi ñëwee moom bu soobee yàlla yaakaar naa ne yii xeetu làmp xam nga ne te arrivage bu bees baa ngi ñëw. waaw waaw ak décembre bi arrivage yu bees yaa ngi ñëw donc ku bëgg lumière yu baax rek contacteel Bamba limière numéro bi mën naa ko jàllale waat 77 757 98 85 di nuyuwaat waa parcelle rek di leen nuyuwaat rek di leen wax ne ñoom suñuy fratello lañ suñuy fratello lañ suñuy xarit lañ nañ ñëw ci jàmm daal nag euh, kenn bañ a manqué Fadel ah kenn bañ a xooju ñu bëre ko ci jàmm ak salaam ñibbiwaat ci jàmm ak salaam Boy Niang numéro 2 daan Modou loo incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. loolu du ma ne Amine damay bàyyi yéen ñiy seetaan ngeen kenn ku la ko arrangé parce que ñoom dañuy laami laami la. muy Ama Baldé c'est un très grand champion. mais ki daan war naa la daan mooy Modou Lo ndaanaan la. tey Boy Niang war a bëre waale loolu Modou daan amat seen aller retour. Boy Niang war a bëre laaloo nga xam ni combat bi boo ci des ko Modou bu yàlla defee yàlla moo xam li xew mu daan Boy Niang waxuma la mairie Pikine mais. chef de canton lay doon yàlla bu mu ko daal. chef de canton lay doon de. <laughs> mais sax dégg naa nee na ku daan armée dégg naa sax daan daan boo ñëwee moom mu lay neex nga dugg boobu neexut danaa demal yóbbu fee ndax. ah loolu de yàlla bu mu am maa ngi nuyu ëmb seen ak Ama di leen encouragé ci seen combat yi ñu jugee parce que làmb moom kuy bëree rek yow yaay daanu mais xam nga loolu booy ñaar tontu na ci. dafa am loo xamante ni Fadel bu dalee ci sa kaw du doon pression mais motivation lay nekk. motivation pare est-ce que du diis ci boobu. non non non. non non motivation bi bi ñaax loolu da koy gën a ñaax gën ko yokk jom. xam nga xam nga def examen def bac échec defaat bac échec bu leenal bennal des soo ko defee moom da ngay génn école bi foofu la booy ñang toll ci maanaam combat bi enjeu boobu la am ci moom. waaw léegi nag xam nga élève bu defee bac échec defaat bac échec ñu ne ko bii mooy sa dernière chance mais bu ñëwee da cay xëpp li mu am lépp. ndax bëriwaale loolu du dis ci non du bëriwaale <laughs> doo bëriwaale du pression yàlla xam na ne du pression source de motivation la. booy bi il est motivé ba pare xam na ci lu mu jëm ba pare xam na li koy xaar ba pare xam na enjeu combat bi natte na ko xam na dayo bi di nuyu waa Pikine bu baax di ñaanal ñëpp jàmm foofu. surtout waa Pikine nag parce que ñenn ñi bi amaa Baldé daanoo am na ay frustration yu bari ak ay waxi sew yu ci bari ci diggante euh, war ko woon a jël ak dafa yàkkamtee combat bi ñu ci bari wóolu woon koog détail yooyu. loolu ah, noo xeex Ama yooyu yëpp ñu ko ciy dégg ay waxi ba ñenn ñi sax déplacé woon dem kër Boy Niang pour saccager yàlla def. li muy def jàmm am ci tey loolu lépp tey bu ko Boy Niang déggee war koo boot war a demaale ak moom arène ak ñi nga xam ne ak ku am ay soppe am ngay bañ ñenn ñi ngi xaar Boy Niang daanu ñu ne voilà lii ñenn ñi ngi xaar Boy Niang daanu loolu tam est-ce dina neex a gérer xam nga nag ku doon may sa bopp doo jeexal yàlla suñu borom moom mooy buur te moom mooy dogal lu ko neex du caagi na fa daal damay bëgg nga génn fakastalu rek boo génnee fakastalu hmm. yàlla suñu borom mooy dogal te wax naa la ko ci début wax bi ñun ci moom la ñu wakkirloo coow li ci pindub teen bi na gars yi amul baag la booy Niang xamul luy yàqal mbër su ko xamoon du daanu quatre fois booy Niang daanu na ñeenti yoon ci làmb <laughs> su xamoon loolu du dégg muñal xanaa kay sama bopp ma la gënal du bañ naa la. d'accord Tapha lu tax Boy Niang ñeme Modou Lo maa la dàq xeex xeexu mbedd ngay xeex bu nu fekkoon ci géew nga xam kenn ko da ngay cof beru ñeme gi Boy Niang ñeme Modou Lo te Modou Lo di bukki timis boo ko dàqee bul nelaw looloo ma jaaxal et puis bu nu bëree ma daan la bu nu xeexee mu la. di ko sañaxal Modou rek ak ni Modou Lo mel. dinaa la wax la ma waxaatoon. waxaat ma ko Modou Lo nit kese la mais booy naa lan la war a xool ci Modou Lo ba ragal ko. mooy Modou Lo mi nga xam ne bii ñëw ci làmb takkul diwul takkul dara bu te jàpp mbëri di dóor ñi daal. ah waaw loolu de moom. loolu moom ñàkk a takk diw loolu moom Modou la concerné ay bagage boppam la gis nañ ko léegi vraiment mu indi slogan bu bees ci làmb sam-sam tàndarma waaw sam-sam tàndarma moom daal ci charia comme ni ko gars di waxee mais nag wax dëgg yàlla am nag wax dëgg yàlla am Fadel Boy Niang bi mu commencé bëre ba léegi ak ñi mu bëreel ñëpp bu ñëwee ba tey ci combat daj dëpp gi vraiment mu am lu muy pressentiment wala di am lu muy calculer ci Modou ah ma xam ne nag Boy Niang doonatut kam doonoon nag honnêtement nag Modou respecté nañ ko nag wax dëgg yàlla am respecté nañ ko jox nañ ko cëram mais Modou daan ko dul la impossible ci ñun. ci moment bi wallaahi du mission bu impossible mais mbër la dañuy weccante ko ci bëre rek. xam nga Boy Niang dafa combat ak Balla Gaye dafa ne Balla Gaye bu nu bëree nga xam ne dàqaleel ba bëree ah. bii mu incité waat ci bu buñ bóodloo buñ bëree ma daan la buñ xeexee ma duma la ku toll ni Modou te xam nga loo xam Demba ma Demba gën laa xam Demba Boy Niang ñu gën a xam boppam fuuf xam na lu mu mën xam na lu mu mënul léegi nag li ñuy wax ci tribunal ne présomption d'innocence da nga ko koy accordeel nee na Modou bu ñu bëree nga xam ne maa la dàq bëre bu ñu xeexee ma duma la teel ko loolu mu wax ba le premier janvier ci guddi ñu xool ba xam fu wànnante mu dekki ba dem. ñàkk takk bi mu booy ñaan ko li nga tawul takk sax moom aar. loolu waaw Moodu Moodu daal làmb ja lenn dong moo ñu ci arrangé wut mooy mu bañ ñëw ci stade lu mu def daanu. Ah, incha allah <laughs> incha allah loolu daal la ñuy ñaan suñu yàlla ñu yàlla may ndam. ci kaw tax mu mu mu leen nax ma bañ lu mu def daanu. déedéet dama <laughs> li ñu arrangé mooy mu bañ a ñëw mais bu ñëwee moom incha allahu rabbi. ci kàttanu suñu borom lu mu def arrangé nañu. Serigne Ndiaye dañu ne moom su ma boo nee boo ñëw lu mu def daanu. Serigne nag moom it. bu gaawee daanu bu yéexee ba daanu. Serigne maa ngi koy ziar déglu naa ko nee naa ko Serigne. kenn duñ saraxe. waaw nee naa Serigne nag waxee na doo xam ne xamee ma ko woon. Ah, ah, ah, te lamb ji nañ ko oyofal rek la Adama Diouf doon wax lamb ji diisut di. lamb ji diisut nañ ko oyofal rek. waaw waaye li ngay wax lamb ji diis na. non non lamb ji diisut lamb ji diisut Serigne dégg naa ko rek maa ngi koy ziar. xam naa kii rek yaram waa tàngoor rek dégg naa ba na saraxe ma ne waa sarax ku leen nu saraxe ku leen saraxe kenn du nu saraxe parce na lu gis loolu ko naqari loxo parce que dafa jàpp ne bëri booy ñang boo koy bëri moom làmb jëpp ngay bëril ñu bëri ñu wax loolu de mas na ku daan dóor muy daanu tey ngay sëgg di jeex sànni tey ngay ku daan sëgg di sànni ah, loolu de day naar Serigne ñi leen bëgg a saraxe bàyyi leen leen waaye bu leen leen saraxe saraxe moom baaxul loolu de kenn mënu saraxe kenn duñ saraxe saraxe moom baaxul saraxe naa ko bosoon sëriñ lan mooy sarax bi mu ne ma non non kenn saraxe dégg naa ko <laughs> bu gaay mooy dun mu yëngal Pikine ma ne ma ne ma ne ko moom du wax luy yàq moom bu mu yëngal <laughs> kon bu leen ko ko ñaan rek bàyyi lépp mu sedd tegal lépp suuf sëriñ loolu faaw ma ñëw na nga wax ma li yëngal Pikine parce loolu gars yi ma koy laaj ñu war a yëngal Pikine lan la. mais xam nga après tout nag Fadel bu lépp jàllee gars yi il faut ñuy comprendre que ne làmb. Sénégal la. sport la sax boo xamante ni ci ay quelques minutes la. te damay wax ne relation humaine yi ñu seex moo ëpp doole tàkkusaanu làmb. ba pare chaque jour damay faral di wax ci samay discours que ne il faudra que ñun ñi nga xamante ni yàlla daf ñu nattu parce que nattu la ñu bëgg mbër di ko gunge ñuy bañ nekk au devant la scène mënuñ gën a nekk star Modou Lo wala Boy Niang ñi ñu fay ñoom ñooy star yi ñoom ñooy vedette jour yi parce que ñoom lañu ñu fay pour ñu waxante ñoom la ñu fay pour ñu buuxante ñoom la ñu fay pour ñu xeex ñun ñi nga xamante ni nag dañoo nekk ci ginnaaw ñun lan moo ñu war mooy encadrer Fadel rafetal xam nga léegi-léegi dara bëgg am nga boole xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xam nga kenn ku ci nekk nag mën nga défendre sa intérêt mbër mais lépp ñu def ko ci esprit sportivité ak fair play xam nga Diouf euh, euh, kanji kanji yi dañuy leem leem di léeb léeb bi ba ray la ci làmb xam nga euh, ñoom xam nga non xam nga ñi ma gën a ragal ci làmb actuellement ñoom dañ cee ba parce que dañuy leem leem yi di leem leem naan làmb fair play la fekk booba diggante diggante digg non diggante Sambé ba Nimzaat toogunu non mais nag non mais nag xam nga làmb moom bu taxawee kenn ku ci nekk fa nga yaakaar ngay dem xam nga Modou dégg nga ko mu woo waa waa Taïba waa Ndoomoor xam nga parce que foofu mooy ay mbokkam waaw mooy fiefam donc Boy Niang c'est normal moom tamit su amee bis ñun ñu dugg Sambe ay Touba ay Jolof ay yooyu loolu c'est très mais li ma wax wallaay dama ko gëm man gis nga làmb waaw ak cooyaan dool dëj cooyaan foofa foofaay suñu séngi suñu non parce que ñun foofu lañ cosaanoo naa ci yow sax ñu ne ñoom seen seen i dëkki maam fala Boy Niang ngeen boobu bi paase déedéet gars loolu de maamam dafa demoon ba jaal da daan màtt xalima. xam na li na li ma laaj ko. la ilaha illallah. <laughs> Eh, Diouf de Diouf. Diouf daa xam Diouf daal li ma xam yéen daa bëri. Diouf daa bëgg coow rek. Diouf dafa bëgg rek. màtt xalima ba bu jaal. laaj ko. Diouf dafa Diouf dafa bëgg coow rek. mais Fadel yàlla xam na ne Fadel li ma lay wax ci sportivité ak fair play wallaay Azim laa gëm. am na lu ngeen gëm la parce que man lu ma gëm la quoi. non yow yéen leen du ngeen wax lu ñaaw yàlla rek a tax may wax. kanj kanj yi duñu wax lu ñaaw mosuma koo dégg bokk parce que tam loolu laa muy yow muy muy ta muy kanj duñu wax lu ñaaw et euh, li tax ma naw leen mooy saa bu waxee dañuy defar te bari na ci sax ay mbër yu ñu jàppale te kenn du ko yëg waaw ñoom dañuy seree saa di nag problème bu danger nag mooy ndox mu sedd buy rey buy rey màtt lanu ndox mu sedd bi xam nga boobu moo gën a garaaw ndox bu ndox ko seen mbax nga daw mais mu sedd <laughs> ma laaj leen ñan njaay njaay yi laaj leen non non non parce que ab ñoo suñuy frère la maa ngi nuyu maa ngi nuyu Baye Alla au passage di ko baax di ko ñaanal journée mi yi mu tëgg yàlla na ci am réussite totale xoolal gis nga maanaam pour te dire ne la ne làmb foogree laa ko léegi-léegi ma déggante wala léegi-léegi ma conseil wala ma séq ak koo xamante ni xam naa ne làmb mën naa dox ba ëllëg mu boole koog booy ñang mais parce que dama jàpp ne man Fadel su ma amee dara loo xamante ni mu néew ko bari ci xalaat mën naa la cee dimbale te dimbalewu la ci dimbalewu ma la ci boo loroo ci loolu man maa la sacrifié man jàppewu ma billaay làmb jàppewu ma ko loolu gis nga Modou Lo Boy Niang d'accord làmb la làmb ji am na enjeu mais man benn problème dafa am ma koy wax Sénégalais yi ñu ma ciy baal booy nag su amee bis nag léeg-léeg seet ci booy nag nag mere ma. parce que li mu leen def parce que moo la ko ji quoi. parce boo xamante ni su may wax ci moom man damay fier ci moom Fadel. barke Seydina Mohamed dañu traversé ay guddi yu mel ni weeru benn fan yu lëndëm crise yéen moom. waa booy ñang booy ñang xoolal gars yi ñu ci bëri xam nga dañ koy gis nii nii nii mais fii mu ñëw nii léeg-léeg ma dégg gars yi wax fàkkal ga booy ñang kenn fàkkalu ko de. booy ñang booy ñang il cee jaay na ñun kenn tëbaloon dañoo rayante ba yegg ñun dañoo tëbal booy ñang xool nga ko fi bokk na moom gis nga sunu balance yi bokkul non c'est que bokkuñu parce moo njëkk booy ñang ci làmb combat yu Modou bëre booy ñang bëreegu ko d'accord mais booy ñang nee na la premier combat bi mu njëkk a bëre tey ba laay Pythagore a bëre grand combat bi Modou loolu lañ ca doon décoré kon kay booy ñang am na mérite mu dem tey bay bëre ak Modou dafa jaar fu metti ba pare nekk xale boo xamante nii xam nga ñun ni man di ngay gisee nii ñaari yi duma ko def man du ma ñaanal ku rep du ma yafal màgget du ma mottali ko kenn tamit ku yàlla dind parce que man complexe moom barke Serigne Bamba Serigne Touba dind na ko ci man mais c'est un gosse très sérieux bu am gëm-gëm xam fi mu jógee xam fi mu jëm moo tax man nag su amee bis ku ko ku ma xool ci booy nag mere ma wax dëgg yàlla parce que yàlla moo ñu boole nag di ko ñaanal ndam mais le premier janvier <laughs> nee naa gars yi gars yi nañ xam ne golo ci ndig lañ koy yeew de. Hmm. kañi kañi jógaat nañ non non du kañi kañi baal baatu kañi kañi waaye yàlla baal waaye ñang ak i mbokkam ak ay xaritam am di jàmmam. ah gars yi takku nañ de. barki Sëñ Bamba Modou am na combat. c'est que li ñu jaaxle Médoune mooy gis ba dernier face to bi nga xam ne diggante Boy Niang Balla Gaye bi ñu bëri dinañ ni Boy Niang bi dafa dafa liggéey liggéey bu extraordinaire. mooy danoo dem yabal bàcc bu dem toog ca siis ba. cëp maa ngay ne ñëpp di xaar Boy Niang dina ñëw fekk kañ kañ yi def nañ seen bilan def seen programme que ni Boy Niang foofu fépp du fa jaar maanaam loolu ngeen réussir moo tax ñu ne kañ kañ yi xale lan mais dañuy laam. kañ kañ yi réussiruñ dara foofu booy Niang a jógee fa mu nekkoon sori avant muy agsi suñu adversaire yàkkamti daal di ñibbi. mu dëpp mais non wallaay xanaa xamoo xanaa xamoo nag ay pion ngeen xanaa xamoo nag